certificat médical boobu ku nekk ci parte moo ko bind de ku ñuy wax docteur Cissé ba mu ko bindee ñu war koo juge bi ma ne ma xool ñu ne ma sama oh, attaqué ba ma xoolee gisuma ci benn bis bis bu ko may ni ko bis bu war a noppali ko amul ITT docteur bi ko bindaloon nii moo ko seet ci biir tribunal bi docteur boobu moo ni ya am na yu koy metti dañ ko xaw a pamti pamte mënatul fekk audience waaye ba mu demee ci clinique bu docteur Niang biri moom dafa di ko benn acte médical yow kuy bëgg a dee bañ la nga bëgg dee France dañ la empoisonné dañ la bëggoon assassiné dañ la bëggoon a rëy nga nekk hôpital ay fani fan kenn laalu sa yaram aucun acte médical n'a été posé sur lui ah sa waay ñeme na yàlla feebar bu rëy dañ koo empoisonné dañ koo poson beneen bi di ko bëggoon a rey assassinat nga dem hôpital ay fani fan maa ngi yow de affaire kañ la woon le 16. certificat médical bi le 21 lañ ko defal certificat médical kon 16 ba 21 da doon tax war a wala lu mu doon wala def salsa ah wala da doon fubal wala da doon karaté da majeeri da doon <laughs> fan. waaw fan. waaw kii di ñaa est-ce am na ñu loolu ñoo ñuy ñoo ñuy defar yaram yi. oui oui non dugguma ci détail alors euh, damay wax ni liñ gis moom moo wane télé ma ni ku dee marché yaa tàggee sa bopp moo wane. fa mu tëdd hôpital wane perfusion boo xam ne mënul nekk kon loolu du dara loo xam ne ñu ñoo génne moom moo wane moo wane taxawaayam cumukaay